tey jii quand même dañu woté won réunion départementale bo xamni que maire yépp ñëw nañu ak seen représentant ak vraiment les leaders politiques yi nekk ci département bi yépp ñëw nañu ak des grands électeurs c'était pour évaluer quand même élection yi enseignement yi nga xam ne jël nañ ko ci scrutin présidentiel de 24 février 2019 dans le département de Tivaouane moo tax ñu daal di fi ñëw tase pour def évaluation bi pour xaar lan la ñu améliorer ak lan la ñu war nous vraiment contents de Nous Et puis pour remercier quand même la euh, population nous avons voté massivement le président Macky Parce que pour qu'on au niveau du département, nous avons fait 20 000 voix. Et vous voyez que nous avons fait 20 000 voix. 20 000 fois nous avons Parce que nous avons à peu près 77 000 voix. Nous avons 57 000 voix. Donc vraiment, nous sommes contents. Je dajale les responsables politiques ak les grands électeurs ak euh, nañ quand même patron PS département bi quand même tous les maires les responsables politiques tous les maires pour wax ñu wax ci affaire élection yi ba remercier surtout population bi ak mobilisation exceptionnelle parce que bu ñu demee ba am vraiment euh, soixante ci taux de participation bu ko defee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp vraiment ñu kontaan pour remercier leen. bon gis nañ ni que maanaam résultat yi am solo lool par rapport ak yeneen région yi tamit daan ci jàll ndax loolu lan moo ko waral tey ndax li ma gisaan def ci la wala yow itam sa liggéey bi liggéeyu ñëpp la. liggéey président Macky def na lu rëy Tivaouane def na lu rëy ci département bi parce que toujours ni ma ko waxee woon bi fi président Macky ñëwee rek ñaari affaire mooy dafa bi président Macky Sall bi muy ñëw dafa fekk dëkk bi nërmeelu dali tali yi délabré ndox amatul courant du koy xamet entreprise yi di tëj ku mel ni ICS nga xam ne mille emplois la amoon muy tëj nit ñi jaaxle di ñàkk seen emploi moom parce que ak xarañam ak vraiment vision bu claire ak stratégie bu dëgër muy PSE ak cadre de gouvernance fiable ak compte d'exploitation solide nit ñi wóolu ko daal di ñëwaat investir ci ba ñu récupérer 3000 emplois ci département bi. deuxièmement mu defa route de Niayes ba nga xam ni ñëpp ñiy bay ci route de Niayes léegi du ñu xaarati nit ñi di ñëw bord champ di leen fay ay prix yu leen neex léegi dinañ mën a jël li ñuy bay yóbbu ko rapidement ci marché yi bu ko defee. bu ñu ko yóbboo ci marché yi nit ñi daal di koy jënd ñu am un bon prix bi ñu defee te bu fàtte ni route des fi mu romb yëpp de de bay de de Rufisque à Bayaax jaar Noto Mboro yooyu yëpp bi mu fa jaaree indi na indi dëkk yi amul ndox indi na leen ndox dëkk yi amul marché indi leen marché dëkk yi amul courant indi na leen courant moo tax nit ñi kontaan voté ko entièrement donc bilan président Macky Sall moo ko voté parce que ku xool élection yi législative ak léegi. président Macky Sall a 1,5 million d'électeurs 000 électeurs législatifs parce qu'il n'était pas concerné. Nous sommes présidentiels, nous avons 2 millions 500 000 électeurs. Ça suppose que le coefficient personnel du président Macky Sall, 1 million de personnes votent nous parce que le président Macky Sall, depuis le début, au moins bien doute que le président Macky Sall a gagné parce que l'idée fait. Nous du Sénégal bu gañal woon dina ma jaaxal trop donc bu kenn nous nit ñi ñoo wóolu président Macky Sall xool ni dëkk bi dafa nekkoon en faillite mu redressé ko ba def ay filets sociaux def inclusion sociale nga xam ne moo nekk axe fondamental lu politique avec la solidarité intergénérationnelle avec vraiment la CMU la carte d'égalité des chances mu def nag programme yu rëy yoo xam rattrapage à part le PSE bi nga xam ne 2015 2035 mu def des programmes de rattrapage def PUDC nga xam ni lu doon ndox lu doon courant lu doon yoon lu doon wàññi coono jigéen ñi ci àll bi mu daal di koy def équité territoriale bu mu jógee ci loolu mu def Promoville bu mu jógee ci loolu mu def Pima nga xam ne dëkk yi nekk ci frontière Tigaay dañ leen fàtte woon mu daal di ñëwaat xam nga dëkk yooyu du pour du pour électeur parce que amul sax électeur presque mais président daf nii man dama yore dama yore Sénégal damay def équité territoriale yemale ñëpp financé ñëpp jeex élection yi nag am na lu ci feeñ élection waaso feeñ na ci am na ci élection confrérie feeñ na ci élection sama mbokk c'est-à-dire vraiment loo xam ne baaxul ci baaxul ci unité nationale loolu nag war nañ ci liggéey bu baax wax ni élection yi da ngay tànn candidat bi gën ci Sénégal mais doo tànn sa mbokk

Et là, nga xam ne c'est unanime dañu renouveler confiance président Macky Sall donc encore une fois ci ci saluer la maturité démocratique et son choix boo xam c'est irréversible que nous xam que ñun choisir pour la continuité et pour le progrès nga président Macky Sall moo tëgg programme yi nga xam ne Sénégal ci progrès ak paix yaakaar naa ne que yow doomu Tivaouane nga ndax am nga ay projets yoo xam ne pare nga ko proposé ko monsieur le président Macky Sall ngir jàppale doomu Tivaouane waaye itam ñuy sukkali dañuy recensé xam nga élection yi li ci neex dañu woo maire yëpp woo vraiment autorité locale yëpp ku nekk sa commune ñun la defal ñu rapport defal ñu rapport ci li nga xam ni moom nga moom nga namm defal ñu rapport ci li nga xam ni moom moom moo mooy sa problème commune mooy sa problème mu kii li nga gis nii li rapport lan la les doléances de la commune de Pamba li nga xamni ñom woon na ni buñ ko défé dinañ leen faciliter seen politique te lii yëpp ay projet yo xamni dafa jëm ci population bi nga ñëw dëkkoo dëkk kii mooy euh, El Hadj Mass Gueye maire de la commune de Mbaye li nga xamni mom la bëgg ci dëkkam li nga xamni population mom lañu laaj mo jël paie sax man ngi koy remercier mais population bi nee ko li boo ñu ko defaree waxuma ne paye 60 payer 60%, mais vais le faire à 100 donc lolo est tax évaluation bi Vous avez une commune di hein, les doléances de la commune de Ngandjouf, nga xam ni ñoo donc lui le projet qui kii bi permettre ñu ñëw département bi segmenter, ko par patch, commune par commune ñu jël doléances Hein, ah war résoudre parce que loolu c'est des doléances

kilifa diine dîner, parce que jàpp nañ parce que liggéey nañ ci yóbbu ay ay ay commission itinérante ñu wax ak nit ñi parce que quand même ce bu leen fàtte ni fii ci infrastructure religieuse yi ba suñu sëriñ suñu Abdou Aziz ko jaajëf jaajëf lu ndaw la mais kenn ko wax ku dara tax aussi jàpp nañ grand électeur nañ ci li bëgg président Macky Sall parce que defal na leen 17 kilomètres de route defal leen assainissement defal leen gendarmerie ba pare redressé ICS ba seen 3000 personnes yi nga xam ni 3000 employés yi ñu doon def chômage dematuñ chômage mu defal leen route de Niayes ba def ba pare Tivaouane mu def ko dans un cercle nag nga xam ne dafa am bunt bu jógee Dakar ak bunt bu jógee Xombol bunt bu jógee Ndar ak ak ak bunt bu jógee Mboro donc vraiment Tivaouane moom président def na fi loo xam ni vraiment. loolu li fi def loolu la ko population bi wax population Tivaouane ni ko kontaan nañ ci yow moo wax ni que nag il faut ñu xam ne législative ñi nga amoon 47 pour cent ñu jóge fa am 50 55 pour cent ñu am 9 points 9 points yooyu ñëpp waa Tivaouane dañuy gërëm ñoo ko liggéey parce que dañoo juumoon ci législative bi rek ñu gisee ni leen président defal ñu di président nañ ko fay entièrement moo tax ñu fay ko votel ko à 57 pour cent di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni politique bi nañ ci nekk il faut que ñu nekk au service de la population car à dire recenser seeni problème pour jéem ko résoudre parce que population yi bëgg nañu président Macky Sall ñun ñu def tout ba nga xam ne li leen dese ci ay projet wala li leen dese ci ñu yëg seen bopp ci politique président Macky Sall lépp ñu dox ci ba ñu yëg seen bopp ci président Macky Sall parce que jógee 47 pour cent ba 57 pour cent vraiment loolu xam nga ni kon population Tivaouane contamine du président Macky Sall loolu yëpp nag bo ken bàkkoo liguey président Macky Sall parce que le coefficient personnel du président Macky Sall moom mo joxe 10 points de plus vraiment loolu laa wax di gërëm ñëpp ñu ñaan ñëpp ñu bokk ndey bokk bay xam président Macky Sall rek mo soxla pour continuer programme bi rek parce que ren nga seet fan la fekk dëkk bi lan la fi def ñëpp gis na lim fi def fan la bëgg yóbbu dëkk bi te mu am ay initiatives yi ma mu ci gëna neex cinq initiative bi ñu mandat bi ñëw moy emploi des jeunes té mo commencé ci parce que gis ngeen ci commencé nañu def ay ay capacitation ay formation yi nga xam bo paré dañ lay jox bo dee ouvrier ñu spécialisé jox la certificat nit ñi com nit ñi nit ñi comprendre ni gëm ni am nga lo mën def parce que wane nga ko dañ lay jox certification té bi gis ngeen ni ñu ngi tijji tijji léegi ay lycée technique Tivaouane am na ci euh, Nioro am na ci yoyep yëpp am na ci lycée technique yooyu avons aussi formé aux gens des métiers qui de Donc vraiment, leur monde, qui est le avons ces 5 initiatives, moi, vraiment, emploi bien que je parce que leur est le département, leur monde, le problème problème principal, j'ai Donc vraiment, je suis de content, je suis content de trop. Je suis content Sénégal, yep, yep, yep, yep, yep. Je voter les présidents massivement, 2 550 000 personnes xam nga kooku ñu voteel la ku ko mën a am doo coono am nañu président bu baax président bu courageux président bu intègre président bu sobre président bu yërëm askan wi donc nañ ko jàppale bu baax ñu ñëpp liggéey parce que liggéey mooy yëkkati et anoblir nit y a que le travail qui anoblit et élève l'homme donc vraiment ñëpp la ñuy liggéey jàpp ci affaire bi ndax émergence bi mën a touché ñëpp loolu laaj doon wax di leen gërëm di leen sant wasalaam